أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم, عليهم السلام mbokk yi tey ci kàttanu yàlla ci la ñuy jeexal histoire ibrahim alayhi salaam ginnaaw jamono bu diire waxtu wu xaw a yàgg tey dinañu jéem a tiire ci leçon yu mujj yi njàngin bu nga xam ne dinañ ko jëlee ci histoire ibrahim alayhi salaam الدروس المستفادة من القصة leçon yu mujj yi passé tey dinañ ko tënk jéem cee jëlee juróom-benn mbir su ko defee àllarba bii di ñëw ci kàttanu yàlla ñu dugg ci qissatu luut alayhi salaam tey tomb bu njëkk bi ci li ñuy jëlee ci dars yi mooy anna ziwaaj min sunanil mursalin danañ jàng ci histoire ibrahim ak ismail ne takk soxna sunna la ci sunnaay ñi yàlla yónni nit du wax ne man dama baax rek du ma takk soxna du ñu wax ne nit dafa ragal yàlla du am soxna duñ wax ne nit boroom xam-xam la du am soxna duñ ne nit wali yu la du am soxna duñ ne nit sëriñ la du am soxna duñ ne nit dafa jege yàlla ba du am soxna ñi jege yàlla ñi yonent yi ñoo ci jiitu te am nañ ay soxna ibrahimaa ngi nii ci ulul azmi la bokk amoon na ñaari soxna am ak ñoom ñaari doom kon am soxna du gàcce sunna la ci sunnaay ñi yàlla yónni woon wa laqad raayna kayfa anna ibrahima alayhi salaam qad tazawaja wa kazalika ismail alayhim salaam tazawaj bal tazawaja nabiyina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa qala an izdiwaji innahu sunnatuhu thumma qaala faman raxiba an sunnati fa laysa minni mbokk yi tey ci sunu réew danañ gis ay nit yoo xam ne danañ leen di tagg di leen baaxal waaye ba romb la leen barab boo xam ne yonent yi romb ñu ko woon mooy takk soxna léeg-léeg nga dégg ñu ne diw day amoon nay soxna waaye daawul nekk ak soxna yi nga posé question waaw moom lu tax kon ñi am doom doom yooyu ñu ne moom moo leen jur nan la leen jure ñu ne saafara la daan bind di jox soxna yi rek ñuy ëmb saafara taarifu na saafara moom la daan ëmb jox soxna yi soxna yi am doom ëmb saafara soosu de foor na yooyu yëpp lu ko waral mooy jàpp ne sëy gàcce la ki koy def deful lu rafet déedéet sëy jaamu yàlla la moo tax ñu gis Ibrahima am soxna Ismaïl am soxna bal sunu yonent bi yàlla yónni woon ci ñun am ay soxna yemu ci sax mu ne képp ku bañ a takk soxna bokkoo ci sama sunna fa man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne jullit nga góor wala jigéen nga ni yow daaw takk soxna yonent bi ne na bokkoo ci sama sunna bokkoo ci sama diine hadis bi hadis bu am histoire la bu ulamaul hadis di nettali lan moo waral yonent bi wax wax ji kon danañ jël tomb bu njëkk ci li ñuy jàng ci dars bi mooy sëy sunna la yoon la suñ ne sunna mooy aw yoon la bu yàlla tëral ci kaw suuf sant ko góor ak jigéen ñoom ñaar ñoo koy def ñaareel li ñuy jàng ci dars bi mooy anna zawjata saaliha hiya allati taxmadu allaha ala kulli xaalin wa tukallifu wala tukallifu zawjaha fawqa ma la yutiq dinañ jàng ci histoire Ibrahim ne soxna su baax mooy soxna soo xam ne day sant yàlla ci jamono ju nekk lu mu su neexee mu sant yàlla su naqaree mu sant yàlla gis nañ soxna Ibrahim yàlla ma- def ko màgget mu am doom Ibrahima ñëw ne ko yàlla nee na ñu rey doom ji mu ne ko amul benn problème li yàlla wax def ko loolu moo tax góor gu la gën a texe góor gu la ëpp jàmm ci biir këram mooy góor gu la gën a baax soxna góor gu la gën a sonn mooy ku la gën a bon soxna loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu tànnloo ñu ut ay soxna balaa ñuy takk jabar ñu tànn ko bal sax yemul ci tànnloo ñu waaye def ñu moytandikuloo ay façonu jigéen mu ne bu leen kenn takk mu joxe ay critères mu ne nit mën na cee takk soxna waaye fasfar bi zaati diin daribat yadaka mu ne jëlal soxna su am diine ay jigéen a ngi ni alxuraan di nettali suñu amul woon diine seen mission du réussir jëlal yaayu Muusa alayhi salaam est-ce que xel nangu na nga am doom liir ñu ne la liir bi dugal ko ci kees kees gi nga teg ko ci dex gi mu dem dinañ la delloo dinañ la delloo doom jooju yow tey boo amoon doom waxuma la sax jigéen mais góor sa soxna am doom ñu ne la def ko ci kees nga dem ba digg géej teg ko ci après nga dëgg ñu fi yàlla ne la dinaa la ko delloo xel nangu na lool yàlla wax ko jigéen jigéen ji def loolu mooy yaayu Muusa loolu moo lay won iman beneen bi mooy Haajara nit sa jëkkër ñëw ne la sa yàlla doon nee na doom ji ñu am nañ ko rendi su amuloon diine du nangu loolu moo tax booy am jë soxna amal soxna bu am diine anna zawjata saaliha soxna su baax hiya allati mooy soxna si nga xam ne tahmadullaha day sant yàlla ala kulli xaalin ci jamono ju nekk ci waxtu wu nekk day sant yàlla wala tukallifu zawjaha moom soxna si du teg boroom këram fawqa ma la yutiiqu loo xam ne àttanu ko gis ngeen Ibrahim soxna si mu amoon tegu ko lum mënul gis ngeen Ibrahima jëlee na soxna si ci ville bi ca Palestine yóbbu ko ba ci àll bi fii waadin gayra zi zar'in ci xur woo xam ne amul mbay amul ndox amul kër amul garab ci ay montagne xeer mu bàyyi fi soxna si woon ko ginnaaw bi ko soxna si gestoo jàpp ci mbubb mi Ibrahima gestu ñoom ñaar seen bët jàkkaarloo soxna si ne ko lii nga def nag du tax nga def ko mu ne ma ko yàlla moo ma ko sant mu ne ko kon yàlla duma seetaan mu daal di génn dem yoonam bàyyi soxna si ak doom ji soxna si nekk ci àll boobu di muñ ba yàlla indil ko fa xéewalu zam-zam tey gis ngeen màkk ni mu amee xéewal lan moo ko waral mooy jigéen bu nanguloon jëkkëram jigéen bu nangul jëkkëram jigéen bu nangoon xiif nangoon mar nangoon souffrir nang nekk ci coono ngir jëkkëram tey loolu la ko yàlla fayee mooy màkkatal mukarram kon jigéen ju baax noo mën a def ba am ko rek jar na ko ñetteel mooy ann ala alwalid an yatafaqada xaala awlaadihi wa yatma'inna alayhim wa laqad ra'ayna kayfa kaana ibrahim alayhi salaam yusaafiru ila ibnihi ismaila alayhi salaam liyatafaqada ahwaalahu wa yatma'inna alayhi boroom kër gu baax bàyyi ju baax li ko diine sant li ko yàlla sant li ko ngor ak jom sant mooy muy nemmeeku doomam fu doom ji mën a nekk ci kaw suuf na koy nemmeeku na koy seeti nay waxtaan ak moom nay diisoog moom nay toog ak moom ngir lan ngir mu xam xale bi lan lay dund gis nga tomb bii nii di nga gis borom kër yu bari nekk ak seen doom waxuma la sax doom ji dafa nekk fële bàyyi ji nekk fële mais ci biir kër gi xale bi day xëy rek nekk leneen te yaa ngi moom yéen a ngi dund yéen a ngi ci biir kër gi yéen a nekk mu xëy rek nga gis ko mu commencé di tux wala mu commencé di drogué wu wala mu commencé dugg ci yeneen diine wala yeneen tarixa affaire bi nga commencé di say di crise fekk yow yaa ko def parce que sa doom yow jàpp nga ne waroo wax ak moom nit Ibrahima ngi ni alayhi salaam da daan jóge Palestine di ñëw Makka di seet si waa këram di xool ndax lim leen bàyyee woon ñu koy dund ñu ngi ci ba tey ñëw na sax fekk Ibrahima takk jabar ju Ibra Ismaïl takk jabar ju baaxul lan la ko wax fasel jabar ji kii du sa jabar loolu lu ko waral mooy day ñëw di seet si kër gi waaw bu fekkee yow nekku leen lañ la sant ngay ñëw di seet si kon su ngeen nekkee nag su ngeen nekkee nag li nga gis koo xam ne doomam day jàng kaye sax du ko xool kaye yi laa yi doom yi di jàng du ko xool di nga gis koo xam ne doom ji day indi ay note composition te note composition xam ngeen ne am na fa parent di signé nga jox xale bi ne ko demal sa papa signé ko mooy pour mu xool ko bu xoolee pare signé xale bi dem indiwaat kaye bi nga xool place parent bi fi mu war a signé amul signature nga ni ko lii nag mu ne non xaw ma nga convoqué parent bi mu ñëw nga ne ko yow tax signé woo kaye bi mu ne fan la ñu war a signé fan la ñu war a signé ah daf dañ ko dañ ko war a signé ça veut dire nga xam ne kon am na ñoo xam ne seeni doom du ñu wax ak ñoom xamuñu ci luñ nekk ñoom daal kañ la ñuy jóg mooy doom bi feebar na wala doom bi xeex na wala doom bi dugg na ci benn problème nga gis leen ñu taxaw amma xale baa ngi dem di ñëwaat dara xewul ba xale bi ñëw xëy police jël si ci kër gi ñu yeew ko nga naan mii man man mii man mus lii musuma ko xalaat fekk yow yaa ko def gis ngeen Ibrahim da daan jóge Palestine yu saafiru muy tukki ila ibnihi ci doomam Ismaïl lu tax li yatafaqada ahwaalahu ngir muy xool ci lan la nekk lan lay dund lan lay liggéey ci lan la nekk loolu mooy diine mooy say doom sa waa kër nga leen di nemmeeku guddi ak bëccëg rawatina tey jamono bi ni mel ay parents yu bare bare bare bari perte nañ seen doom seen doom dugg na ci lu ñu xamul lu ñu yëgul giraawaali goo xam ne jamono biñ ko yëgee mënutuñ ko rectifier fekk c'est trop tard béy wéy na mbuus li ko waral mooy ñàkk a toppatoo ñàkk a surveillance ñàkk a waxtaan ñàkk a seetlu ñàkk a nemmeeku Ibrahima moom loolu la loolu la bañoon mu dal ko moo tax mu daan seeti bis bu nekk jamono bu nekk waxtu wu nekk muy jóge Palestine di ñëw ñaareelu këram ci màkk di seet doom ji mu fa bàyyi ak yaayam ci lan lañ nekk lu tax wa yatma inna alayhi ngir xelam man dal mu xam doom ji mu fi bàyyi ëllëg du dem ci yàlla tabaraka wa taala doom ji nekk rappeur ginnaawam wala mu nekk simbkat wala mu nekk mbër wala mu nekk musicien wala mu nekk footballeur wala mu nekk wala mu nekk wala mu nekk wala mu nekk ila axiri loolu lay bañ dajeeg yàlla ëllëg bàyyi fi doomu rappeur loolu lay bañ moo tax muy ñëw di nemmeeku doomam ngir xelam mën a dal ñeenteel bi ci li ñuy jëlee ci dars yi mooy annal muslim laa budda an yakuna lahu basma fi hadihi alxayaa bi maana annahu laa budda an tataqaddama ayu xidma li diinihi li diinik wa watanik ne jullit il faut mu am taxawaay ci dund gi muy dund dund gi ngay dund il faut nga am ay taxawaay yoo ci taxaw ñëwuñu ci kaw suuf di dund mii rek di lekk di naan sëy nelaw dajale xaalis après jeex na non dafa am lu ñu yàlla indee ci kaw suuf bi maanaa loolu pour ñu xam ko taxawaay ban lañ war a taxaw mooy taxawaayu liggéeyal sunu diine ak sunu réew loolu ibrahima jàngal na ko fa laqad ra'ayna kayfa qaama ibrahim wa ismail bi raf'i qawaid al bayt ibtigaa mardati llahi jalla wa ala wa liyakuna qiblatan lil muslimin jàng nañ ci histoire ne ibrahim ak doomam ismail ñoom ñaar ñoom ñoo tabax kaaba gi tey ñoom ñaar ñoo yëkkati fondement bi lan ngir sàkku tiyaaba yàlla tabaraka wa taala ngir sàkku kontante yàlla waaye ngir kaaba gi nekk xibla boo xam ne jubluwaay boo xam ne jullit ñi bu ñuy jaamu yàlla dinañ jubli ci kaaba gi kon ibrahima liggéeyal na waxuma la liggéeyal na màkk mais liggéeyal na jullit ñi ci kaw suuf loo xam ne kenn dootul fàtte ibrahima ba àdduna bi di jeex lu sax kenn dootul fàtte ibrahima saa yoo jubloo ci kaaba gi rek ibrahima dina am tiyaaba parce que ibrahima moo tabax kaaba gi loolu lañu bëggee jullit ci société bu muy dund mu def fa loo xam ne bu ko jógee ëllëg ak si biir loolu day jëriñ jullit ñi di continuer paa nga dem tabax loo xam ne ëllëg ak si biir loolu day màbb diine ñaata jullit tey ngeen xam ci kaw suuf yoo xam ne ñii ay baar lañ fi bàyyi ñii ay dancing ñii ay salon coiffure ñii ñii ñii ñii ñii ñii imagineel jullit boo xam ne bi muy faatu mi ngi bàyyi ginnaawam benn kër goo xam ne wala benn tabax boo xam ne wala benn barab boo xam ne dañ fay mooy yàlla ñaata bàkkaar moo lay fekk fi nga tëdd wuuteeg ki nga xam ne moom bi muy faatu mi ngi bàyyi jàkk mi ngi bàyyi teen teen bu nit ñi naan mi ngi bàyyi hôpital bu jullit ñi di fajoo mi ngi bàyyi garab goo xamante ne nit ñi dañ ciy toog di lekk ci firwi bi ah xoolal tiyaabu yooyu ñi lay fekk te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne kullu amal iza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasa ku dee sa lépp day gaare ku dee rek sa sa liggéey yëpp taxaw na ba mu des ñett ñett ci ñett yooyu yonent bi boole na ci jëf ju baax joo defoon sarax bi nga saraxe woon mu lay fekki tabax boo jàkk boo tabaxoon xoola ibrahima bi mu tabaxee kaaba gi léegi ñaati nit ñoo dem ci kaaba gi waxuma par at de par jour ñaata nit kaaba gi mooy bërëb boo xam ne chaque jour chaque minute ngi dund du mus a taxaw nit ñaa ngi wër rek xam ngeen nit ñi wër boobu ñuy wër kaaba gi ban ban heure lañ koy arrêté ban bis lañ koy arrêté ban weer lañ koy arrêté xam ngeen ko est-ce que dina taxaw heure julli rek heure julli rek la ñuy arrêté wër kaaba gi bu ñu sëlmalee terminé fi mu nekk nii bu ñu jullee gee ba pare xëy nit ñi dañ naan julli julli nañ gee nit ñi dañuy tëddi déedéet nit ñi dañ koy wër ba fajar jot ñu arrêté waat julli suba di wëraat ba tisbaar jot moo tax benn sénégalais bu demoon aji mu gis nit ñi di wër mu ànd ak ñoom di wër mu naan bu nit ñi noppaloo ma noppal mu wër ba xam ñu yéene yóbboo bi daal ñu ne ko yow lan moo la xamloo mu ne man kay depuis suba laa fa dugg may wër rek arrêté wu ma ñu ne ko lu tax mu ne dama doon xaar nit ñi matal ma taxaw nit ñi taxawee rek ma xam ne affaire bi jeex na affaire bi amul jeex moom xamul ne xamul ne juróom-ñaari yoon rek la ñu war a wër après mu jeex kon mbokk yi jullit dafa war a jariñ société am nga bàyyi sa société loo xam ne nekkatoo fi nit ñi duñ la fàtte su la neexee bu la naqaree boo demee ci benn waaye boo xam ne dangaa fekk mu gas teen nit ñi di ci root bu la neexee bu la naqaree kooku day am tiyaaba boo demee benn fekk benn waaye boo xam ne dafa tabax hôpital nit ñi di faju su la neexee bu la naqaree day am tiyaaba ki tabax jàkk nit ñi di ci julli ku mu neex ku mu naqaree boo fa jullee mu am tiyaaba te tiyaaba bi muy am mooy mbooloo mi nu mu toll ñëpp day am seen tiyaaba te moom tiyaabaam du wàññeeku kon lii moom mooy ay compte soo déggee compte compte booy dajale lii mooy compte mooy tabax jàkk tabax école bu ñuy jàngee islam ah defar teen bu ñuy naan defar hôpital bu ñuy faju defar barab boo xam ne day jëriñ jullit ñi waaye xoolal ki defar estade kooku ñaata bàkkaar lay am ak ki joxe ndigal nañ ko defar ki tabax baar ki tabax dancing ki tabax foyer de jeunes ki tabax ki tabax benn barab ah benn auberge bu ñuy njaa njaaloowee fa mooy yàlla xoolal kooku ñaata bàkkaar lay am waxuma la bi muy dund bu deewee moo gën a garaaw day dee ay conteneur bàkkaar di ñëw est-ce que kooku dina dugg àjjana kooku même bu amoon tiyaaba de bàkkaar yi dañuy dem ba double tiyaaba yi Ibrahima loolu moo tax ñuy jàng ci histoire Ibrahima tiyaaba Ibrahima liggéeyal bu mu liggéeyal xeetam liggéeyal bu mu liggéeyal diine xoola ba tey jii yéen a ngi jàng turu Ibrahima ci alquran ba tey yéen a ngi dégg maqaama Ibrahim soo demee màkk nga wër kaaba gi ba pare du doy de foog nga reculer ñëw ba place bi Ibrahima tabaxoon di taxawoon di tabax kaaba gi nga julli fa ñaari rakk ngir Ibrahima alayhi salaam gis nga lu baax moo tax lu baax ñu ne nañ ko toppandoo nañ toppandoo lu baax soo gisee nit def lu baax da nga koy jéem a toppandoo ci lu baax loolu ndax nga am li mu am tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi falahun soo gisee ku baax da nga koy toppandoo jéem a toppandoo ku baax day tax nga baax mën ngaa bañ a nekk bandi nga toppandoo bandi su la nit ñi séenee lu ñu lay wax ee bandi xam nga du ñëpp ñuy crise karas seen tubéy dañuy tox du ñëpp ay naan de mais boo leen gisee jaawale na ngay bandi parce que yëfu bandi lañ def alayhi kazalik du ñëpp ñiy sol colu lislaam ñoo baax de mais boo gisee kenn ku soli solu lislaam même bu fekkoon ne bandi la bis boobu looy yaakaar ku baax a ngi nii parce que dafa jéem a def lu baax moo tax nit ñi war a def lu baax comme Ibrahima ni mu ko defee tabax kaaba jëriñ réewam jëriñ jullit ñi loolu lañ bëgg ab jullit di ko def Ibrahima a ngi nii tabax fondement kaaba gi ngir mu nekk xibla jubluwaay ci wàllu jaamu yàlla pour jullit ñi juróomeel bu ñuy jëlee ci darsa tey bi nga xam ne moom la ñuy jeexalee xiste Ibrahim depuis ñu ko commencé ba tey mooy laa tafrah bi ay amalin taamaluhu xatta taalam hal qabilahu allahu minka am la fa laqad qaala taala innama yataqabbalu allahu min almuttaqin juróomeel mooy bul def benn def bul wax benn wax bul jëf benn jëf nga ci kontaan te xamoo ndax yàlla nangu na ko wala nangu bul julli benn julli ba nga yaakaar ne sa julli gi yàlla nangu na ko bul woor benn woor nga ci kontaan di zibile man ren woor naa woori ba mu jeex xiyaam naa ko naafila naa wàcce naa ci temps kaamil zikr naa ngay tëb di cëppi cëppi xamoo ndax yàlla nangu na ko laa tafrax bi ay amalin taamaluhu bul kontaan ci benn jëf booy jëf ndax xamoo ndax yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ah lu tax yàlla wax na ci alquran innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla laay nangu kon sa jëf xamoo ndax nangu nañ ko wala nangu nañ ko yow da ngay def rek rabbukum a'lam bima fi nufusikum fa in takunu salihin fa innahu kaana yow la ñuy waxal lil awaabina gafura da ngay jëf rek yàlla moo xam li muy nangu yow da ngay jëf rek yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi jàng alquran yaa ngi joxe azak yaa ngi saraxe defar rek yaa ngi def yàlla moo xam li ngay def baax na wala baaxul moom moo xam da koy nangu wala du ko nangu kon looloo tax waroo ŋàññi jëfu kenn nga xamoo ndax nangul nañ la waroo reetaan jëfu kenn waroo sayite kenn waroo mokke kenn ndax xamoo ndax nangul nañ la maadaama xamoo ndax nangul nañ la bul kontaan bul zibile bul bul naagu laa taqnatu min rahmatillah ah bu leen naagu bu leen yàkkeeku li la war rek mooy nga jëf comme niñ la ko santee nga bàyyi ak yàlla su fekkee da nga bokk ci ñi ragal yàlla allahu subhanahu wa taala nee na dina la nangu juróom benneel mooy an tahrisa ala an taisa ala taat wa an tamuuta ala taa falaqad raayna kayfa anna ibrahima alayhi salam bazala xayatahu kulluha li xidmati dini illahi wa lidaawati ila allahi jalla wa ala hatta axiru lahzatin fi xayatihi mbokk yi juróom benneel ci tomb yi nga xam ne dañ koy jëlee ci dundu ibrahim mooy yow jullit góorgóorlul nga xër ndax nga dund ci topp yàlla góorgóorlul sa dund yépp nga def ko topp yàlla góorgóorlul booy dee nga dee ci topp yàlla wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajak yàlla dul ay jullit ngeen góorgóorlul nga dund ci topp yàlla góorgóorlul nga dee bi ngay dee yaa ngi topp yàlla gis nañ ibrahima alayhi salaam dundam yëpp daf ko def ci liggéeyal yàlla dundam yëpp daf ko def ci daawa dundam yëpp daf ko jox yàlla tabaraka wa taala ba seconde yu mujj ci dundam lépp daf ko jox yàlla noonu la ab jullit war a mel sa dund sa yëngatu sa lépp nga jox ko buur yàlla subhanahu wa taala comme ni ko ibrahima alayhi salaam defee góorgóorlul booy dund nga dund ci topp yàlla naam an taisha ala taa dundal ci topp wa an tamuuta ala taa deel ci topp bul dee mukk fekk bi ngay dajee dajak yàlla toppoo yàlla borom bi daf ñu wax ci xuraan ne bu ngeen di dee dajeeg man na ngeen nekk ay jullit gis nga ibrahima yemul ci lii de mais lii sa daf ko ndénkaane dénk ko ay doomam wa wassa biha wa wassa biha ah wa wassa biha ibrahima wa bani yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum gis ngeen yemale ko ci boppam de mais dafa taxaw def ko ndénkaane ne doom yi bu leen dee dajeeg yàlla lu dul ay jullit ngeen dund leen ci topp yàlla màgg leen ci topp yàlla dee leen ci topp yàlla tabaraka wa taala loolu mooy njàngale ibrahim dundam yépp mu jox ko yàlla naam bal bazala xayaatuhu kulluha dundam lépp lépp lépp lépp li xidmati diinillaahi ngir liggéeyal yàlla lépp gis ngeen ibrahim mooy ki njëkk a dox wër fan lay fan laay def ba jaamu yàlla jóge na Irak dem Palestine jóge Palestine dem Égypte jóge Égypte dem Màkk fu nekk wër na ko moo tax nga gis yahuud yi bëgg a bokk ak Ibrahim chrétiens yi bëgg a bokk ak Ibrahim jullit ñi bëgg a bokk ak Ibrahima ñu koy xëccoo waaw yahuud yi ne ñoom Ibrahima ñoom ñoo ko moom chrétiens yi ne ñun ñoo moom Ibrahim jullit ñi ne leen ñun ñoo moom Ibrahim ba yàlla moo ñëw di leeral ana ñetti mbooloo yi ñan ñoo moom ibrahim lan moo tax loolu dafa baaxoon firaaw nag kan ngeen gis muy xëccoo ne man bokk naa ak moom kan yahud yi sax dégguleen ñu naan ñun firaaw na ci ñun la bokk li ñuy yées chrétiens yi li ñuy alku dégguleen ñu naan ñun firaaw na bokk nañoo ak moom est-ce que dégg ngeen ko kan lañ bëgg a bokkal ku baax kon nañu jéem a baax te baax nit du mën a baax lu dul mu topp yàlla nit du mën a baax lu dul dundam yëpp mu jox ko yàlla mu liggéeyal yàlla loolu kese soo ko defee baax kese waaye leneen beneen programme boo dund bu dul bu yàlla indi say mbiri bopp la Ibrahima dernière minute am dernière minute dem na bay rendi doomam ngir yàlla yéen a ngi jëm ay fan fanu tabaski mi ngi nii sunu kanam xoolal tëral sa doom di ko rendi ngir yàlla tabaraka wa taala loolu tey bu ñu ko santoon kenn ci ñun ne la rendil sa doom du ma wax di nga ko def du ma wax doo ko def de waaye bala nga koy def di nga xalaataat juróom-ñaar fukki junni yoon waaye xoolal doom bi bi ko bàyyi ji ne dama lay rendi xoolal soxna si bi ko bàyyi ji ne dañuy rendi suñu doom loolu yëpp lu ko waral mooy allah subhanahu wa taala kon mbokk yi juróom benn tomb yi mooy li desoon ci dundu ibrahima alayhi salaam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñëwaat fekkee ba àllarba bii di ñëw ñu jël luut alayhi salaam moom tamit dundam ak histoire am yan njàng lañ ko jëlee ak ko yàlla yónnee yan effort la def ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala jàppale ñu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu